Gasunguru bena abi, gasunguru bena tata, gasunguru bena Osunguru bena, osunguru bena bi, osunguru bena bama, osunguru bena so. Soda, Madef. Mai santa. Bayang si jam. Mai santa ba. Nah, Def. Lan ladang ma solo. Tuh adem na solo. May jama prete apartir mo damay damay dam damay mën nga ma may ba ma ñëw ñu doog a waxtaan. déedéet mënut a xaar góor li ma waxtaanee ak yow keroog foo ci toll. li ma li nga wax li ma la wax ci sa mag ji ndax waxtaan nga moom déet wala waaw moom lay la laaj foo ci toll. Soda mais man maa ngi ci li ma nekkoon mais li ma nekkoon mooy waxtaan ak Binta ba convaincre ko mais Binta mi ngi wàcc mi ngi dal. mais Binta da koy comprendre wax naa la ko la dernière fois xam nga moom dafa nekk ci ay problème ay jàppal bàyyil nangam nangam mais yow bu fekkee moom dafay jax fii yow aussi nga am benn attitude bi parce que la dernière fois ni ñu waxee man ak yow ça un peu surpris venant de toi franchement léegi nag danga may may tuuti temps rek ma convaincre ko tuuti temps rek Binta garaawul ah rafetal njort rafetal njort yow tamit. dégg naa baax li nga wax. yow say biir wax rek laa xam ne waxtaanoog Binta xam nga lu ma bëggoon jël sa caabi kër ma jox la nga dem. nga sunguru euh, euh, euh, laa seet woon li tax ma seetsi la nag mooy sama diggante ak Ramatulaay. ndax euh, papa xam nga fi ma toll ak Ramatulaay sama diggante ak moom fu ne jaar nañ fa man ak moom lu ne daj naa ko sama diggante ak Ramatulaay te yow mii umpule cofeel gi ma am ci Ramatulaay tey nag Ramatulaay moom papa bu ñu ko génnee ci mbedd mi mu dem luy ji ay apartement ba ñu koy violer père père Boy, nga nekkoon eh, booy dimbali ma xam nga boy wi ma xam nga lan laa la yëgal buma waxati père wax ma papa wala nga ni ma euh da nga modérer sa langage gars man duma sa morom xamal ni ngay wax ak man nank ramatulaay da ngeen tan genn deug la beugante won genn dem ba ci bir yalla dogalul sey sen diggante ye ñaar ah bu dem yoonam yow bayil gone gi ah liko dal nak ñun ay wajurum ñi gi ci wóoru la ndax ñu dañu génnee ramatulaay ba mu dem liggéey appartement xamoo li génnee ramatulaay ba ngay wax naan ñu génn ko ci mbedd mu mi taxawalu ba lii dal ko xam nga nu mu demee euh, booy dama bëgg nga régler nga régler té c'est ma fille dégg nga li ma la wax hmm. xanaa xanaa yow dafa am euh, est-ce xool nga bu baax li ngay wax yow dafa am lu nekk ci yow wala. góor dofuma jinne jàpp ma te làquma la tubaab làquma la anglais ay olof yu leer naññ laa la làq gis nga man boo ma xamul dag may laajte man teraanga ci laa judd ci laa màgg. kër jaaxaluma fu ma dëkk jaaxaluma te gis nga lii daw fii kenn mënu koo saaja sa mag nag la ma wax dégg naa ko ñëw nga toog na nga wax ñëw nga taxaw nga waxtaan naa ak yow nga ne ma may ma ma waxtaan ak moom te leer na ma ne waxoo ko dara sëy bi teg ko ci suuf ma jox la sa caabi kër ma romb la nii ma ak sama doom dem wuti fu ñu dëkk jaaxaluma sooda sëy bi moom du ma ko teg ci suuf tey du ma ko teg ci suuf ëllëg encore une fois gis nga ni ngay doxale nii sa attitude man ne vraiment dama koy déplorer mais yow sama mag lu ngeen mënti wax mais yéen ñaar la concerné mais man li ma war a def maa ngi koy def maa ngi jël sumay responsabilité au contraire yow sax jox naa la cër lool mais xaw nga maa bett mais yow boo dee def nii est-ce que seetlu nga sa doom xool nga ay daal ay daa lekkatul ay daa naanatul ay daa waxatul ak kenn foo ko fekk rek mi ngi dëgg mu elle a le absent ay da nurootul sax nit ndax lan ndax yow ngay jax fii boo jaxee fii bintaa jax fale mais lii lan la nit nag booy booy wax ak moom danga koy may tuuti te tubaab wolof dani xaar bés bu rafet jaar na jar na xaar fii ba déwén lu fi lan mo fi jar empressement bi ak jakam gi ak tay tay tay di non non dang may may dank may ma touti temps ma régler sam problème ak sama sœur ni tak sey bi ñun ay wajuram diko dal koy fa yam ci ah, ah. gëmal yalla baxna way dal xamal ne man sax li war waruma bet, ndax man fi waxtu wu ñew na fi danaka fi la doon fooye biñu nek xalé bu ndaw man ak te sama waajur jigen jigéen wi fi nek ni muy doxale ak yow bay man da ragalon naa ne sax buma ma ramatu lay buñu moytul doxalin woowu lay am sama digganteeg mom ndax fi xawma sama yaay ceinture wala yow mi tok eh eh arrête arrête ah mais yow yow yow ya nga bëgg dépasser bor nii ah lii lay wax sa xamal gi li di ko nga ko wax sa bay yow yow man lu may dund ci biir kër gi. loolu concerné na la yow yow réew nga ah euh, xam nga lan laa bëgg nga yem ci kudd ñu roof la ci gayet doo jóge sa kër ñëw fii fekk na sama kër naan man la nga ramatul la ngay dund ak yaay ramatulaay ak nangam sàngam yow li may dund ak yaay ramatulaay lu soyoon man damaa lijjatu lu sa mbay di dund sa baay Euh, boy euh, mami bo paré li ngay wax nga jog dem sa yoon. dina dem de waye dina la bayel kaddu gi nga bàyyi ko xel yomal xiyam nga jëm buñ fa yeggé suñu borom bu jur wu nek dina ko laaj naka nga samé won seenu njaboot te gëm na ni bëss bo buñ fa yeggé père. waye leneen li ci dess moy mbir mi dina ko top ba mu leer Ramatoulaye ñi ko def li suma la waxé rek dina ko top ba mu leer bu yebo nga xamné dina ko top ba mu leer. ni yo boy bi moom. be silile am rabbi man xaw ma xale léegi lan mo tax ñu bëgg jigéen rek la xamul ah ci sama doom ji nobu la nobu la lo koy ligënté oh ay tout ça mer waay. che affaire kër gi nag man yaakaaroon naa ne dinañ dund ba tey doo ma wax waxi delloo la sa caabi kër kër gi bi ma koy tabax dama leen cee sédd kër gi bi ma koy tabax ayda la yow yaay leppi ayda mais bu ma waxati waxu delloo la sa caabi ndax boo ko delloo du ma ko jël wax boobu gas ko te gis nga góor sa mag gi ñaaw na làmmiñ mën na wax ndax wax na ma kero bu ma ñëwee foofu loo xamante ni ba tey mi ngi sama bopp bi di ko travailler yow Aïda bu la daan seet si danga koy tëj ci biir néeg bi tëj wala ci saal bi ngeen di toog wala foo leen di toog moo tëj lan tëj Aïda ci biir yow man sa maga ma ko wax nee na ma jeexal nga ko loolu la ma wax ma yow lan ngay wax nii Ah, lu may wax góor ak jigéen la mais yow am na loo xam ne boo ko déggee ñu wax la ko ci man sax waroo ko gëm ah, man de dara wóoruma ci ndax góor nga yow xam nga ma wóoruma ci xam nga ma te ku teral jigéen la ku cëral jigéen waaw yow te loolu du ma ko mu lay seet si góor a taqagoo ko teg ko seen saal am ngeen saal loo koy tëjee ci biir néeg yow loolu moo nekk sa xel koo gëm nag ndax man je suis responsable Aïda su ma seetsee dañuy toog ci saal bi ñu waxtaan mais yow Binta bu dugalee loolu sa xel sax yow waroo ko gëm ci man parce que yow xam nga ma man doomu jullit la man ku yiw la mais loolu dafa nekkul sax sama xel loolu waroo ko woon gëm. góor daal góor la rek. ba ci luñ la wax nga gëm ko ci man la rek man li gënoon dal sama xel hmm. nga teg ko ci ëtt ba wala nga teg ko seen perron boobu ci fauteuil bintam yi bu boobaa dina xam la muy wax waaye tëj ci néeg daal di tëj tëj bunt bi man Aïda musuma wax dara yow musuma wax dara wóolu naa la nag waaye yow góor nga Soda nag ah, on dirait te Aïda mii tamit comme xaru yar kenn rawu ko Soda ah? yow on dirait que yaa Binta comme Iran Irak man daal xam nga man lan la boo bëggee dégg dëgg mooy lan damaa bëgg nga dem wax ak sa mag so mune tak nga tak so munul tak nga ñew jël sa caabi ma genn abal man wax di ci bopam la son sama mak, dina wax ak mom dina tak ci ni wula ci na waxu kër gi nak waxu caabi kër gi bàyyi bu ko waxati waxi ayda nak wax ju ñaaw ju joge ci man ak mom lolu musta exister. waxal leneen way baat bobu sul ko et puis man sax may ma ma dem quoi may ma ma dem. dal lan sa xel dalal dalal dal len way dal len ah. waaye bu amul woon sa mag du ko wax xam nga ne lii luus na tey jii boo ko takkul tamit may perte ndax moom boo ko doon rey sax du wax man kii xaw ma kii man man lu tax jël man samay bagage ak samay kii lu tax kii jëlu ma xale bii fan la ma toppee ah

Pour les résultats. Les résultats, oui. les résultats. Euh, je pense que c'est pour bientôt, hein Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En tout cas, en moi, je suis fier de toi parce qu'en tant que directeur de l'école, vraiment, tu me donnes entière satisfaction. Parce que tu as amorcé depuis Bobo un excellent travail. Merci. Euh, jàngalekat yi sentir communauté bi sentir parents d'élèves yi vraiment je suis très content et fier de toi. merci beaucoup directeur xam nga euh, on a choisi d'être enseignant. Mhm. pour la vie. Cela veut dire quoi Cela veut dire que pour la vie, nous choisirons toujours la réussite des enfants. C'est ça. Donc, uh-huh. loolu rek c'est suñu seule préoccupation et seule satisfaction. C'est ça. Mais ngi sama kër de. ah ça va mhm. bien. ça va alhamdulilah mais eh, macha allah musóor gi moom. Hmm, allah ah. <laughs> ça va ça va. ça va ça ah, va ah da nga génnoon. waaw. pourtant nag euh, temps je maa ngi pour voir ak yow parce que xam nga yow sama ma sœur..! suñu mag nga te dañoo yàgg jàppale bu mu daan seet si góor nga jënd ataaya xam nga dañuy may xaalis di ñu jëndal cigarette xam nga donc yow sunu sunu yaay nga vraiment ñu ngi lay remercier ci loolu quoi mais góor dañ doon waxtaan keroog man ak moom parce que son mariage là c'est pour bientôt mënu ma nag dama bëgg nga dem ci Binta parce que man xam naa seen diggante xam naa aussi góor a fi la teg ñu waxtaan. pour que mariage bi nga am ci taxaway bu mat seuk seuk seuk parce que do sunu mak sunu yaay nga ensuite ayda dafa yag goor ba pare muñul ko goor nekk bitim rew mais mu tok senegal di xaar motax dal daal lu ñu bëgg dal bint lo ci mën rek nga def ko ndax ñun def ko ndax yalla ak deret ñu ko bëgg tar bu dëkk bëpp xam nañ ko parce que ayda lool kess nañ ko déssé la ah. mo taxul man damay ñëw sa kër mais xol li yàlla dogal nest ñu daje mais daal loolu la woon bëgg naa daal bind taxawaay boo ci mën rek nga def ko ci. parce que daal bëgg nañu ko def mariage boo xamante ni Cees gépp dañuy génn. c'est pour cela nous nous battrons. tous les jours chaque jour. sa problème boobu monsieur Dia fan la toll fan nga si toll quoi. ah mooy la fille là. Ramatoulaye waaw Ramatoulaye voilà. monsieur le directeur. Mhm. finalement ak Ramatoulaye Je n'ai pas eu d'autre option que de porter plainte. Euh, porter plainte Oui, j'ai porté plainte finalement. Oui, à la gendarmerie ou à la Madame, euh, j'ai été au commissariat. Mhm. Euh, on m'a mis en rapport avec l'inspecteur chargé de la cybercriminalité. Mhm. Donc finalement, donc, j'ai écrit une plainte. Uh-huh. Et donc, euh, certainement, nous allons aller vers un procès. Hein. Ah oui, mais je pense que c'est bien ainsi. Hein. Mhm. le procès là, c'est mieux ainsi, au moins pour certaines salaires. Vous savez, monsieur le directeur, en fait, si je vais à ce procès-là. Ce n'est pas seulement pour sa Derman, mais c'est aussi pour redorer le blason de tous les enseignants. Parce que je suis conscient que si moi je suis condamné, si moi je suis coupable, c'est tous les enseignants qui seront coupables. Si demain je suis innocent, c'est tous les enseignants qui sont innocents. Et ce corps de métier, monsieur le directeur, vous le savez mieux que moi, ne mérite pas une, telle... Euh, une, telle, accusation. Et une telle humiliation Non, c'est une injustice. Absolument. Une injustice. Uh-huh. Nous, ne voulons pas construire le uh-huh. et passer par derrière détruire le uh-huh. Ça n'a pas de sens. Et puis il y a la solidarité de corps. Mais bien sûr. Ah, donc tout le monde est derrière toi. Mais sache aussi que, M. Ndiaye, que moi je suis derrière toi. Euh, la commune est derrière toi. Toute l'école est derrière toi. Vous savez, le directeur, dans cette histoire-là, aujourd'hui, si je tiens encore, c'est parce que justement j'ai senti cette solidarité de corps. Mhm. J'ai senti que tous les enseignants sont avec moi. Mhm. Et ça, vous avez joué un très grand rôle. Merci beaucoup. Au niveau de l'école, mhm. au niveau de la circonscription et même au niveau du Sénégal. On m'appelle de partout pour me témoigner du soutien des enseignants. Et ça, il n'y a pas plus grande satisfaction morale, monsieur le directeur. Et c'est ça aujourd'hui qui me rend fier et qui me permet d'aller vers ce procès-là la tête haute pour la fierté de tous les enseignants du Sénégal. Et je dis que, les enseignants sont très euh, solidaires et ils sont fiers aussi, imbus de leur personne. Et, cet enseignant-là, mhm. il est qui, monsieur le directeur euh, Je dis que l'enseignant, celui qui enseigne est forcément opiniâtre, car il fait le travail d'un homme qui n'a jamais tort. Et L'enseignant est un être lucide et grave. Il est le prêtre de l'idée, il est le médecin de l'ignorance, il est le magistrat du progrès, il est souvent à la fois, en même temps, tout. C'est pour cela, monsieur le ministre. C'est tout là dans l'enseignant. Nous allons le préserver à tout prix. Merci, monsieur Ndiaye. La solidarité de corps. Voilà, monsieur merci, Monsieur. Mais je suis content. Mais il n'y a pas de problème. je te souhaite un bon courage. Mais attends aussi. Mais on attend le résultat. D'accord. Ça ira, Inch'Allah. Allez, allez, bye. Ok, bien. oui. ak tu, leen su li leen joxal Dal, c'est li li nekk seen seen vie euh, mari mariage waaw bon mais comme ni ma la ko waxee. man xamoon naa naa la gis man taxawaay bi ma mhm. sama kaawu doom ji laa koy taxawee. ma taxaw fenn di bàyyi sama kaawu doom takkaleen ñor moom ngeen bëgg dem leen takki yow nag yow rek laa doon rëbb yow ndeke ko baadool la nga sa diggante góor a des na dese naa rafet soo gëmoon li ngay wax ba nga déggee ni danoo yàq tànjar baatam ba yegg ci moom. Dinar jarang nga sol sa dal ñew sét ma ba xam nan la ka bi démé mais li jinn woo ci dara nga melni nekko fi xaar ba takku jot ngeen am problème góor wax ne limu mu leen wax ngeen ñew pour ma bëgg sama yoon nekkul ci tak d'accorduma tay d'accorduma ëlëk ndax xalé be ngeen di bëgg mist la seytane la rambaaj la fu ka bi yex tay di mom mom la mom mo xam taal bi ba kenn wañax mu ndank man kok dina dem di ti jema wax leen lumay wax nañ ci dugal seen xaalis ba euh, xam. nga wax nga dëgg sax parce que ku nekk itamit na ko xool ci boppam. waaw kay mais xoola yàlla xam na ni ñun yéex nañoo xam ni Ramatulaay suñu jarbaal la c'est euh, n'est-ce pas yaay yéex nañoo xam loolu parce que Ramatulaay dafa ñoo nëbbutu elle était seule elle vivait seule gisuñu papa gisuñu yaay mais nga defoon yow lu ñu séq ak góor nga daj ko ci ñun Njaay dina tiim sa doom di ko violé non moo tax su ma sañoon aussi. nga ànd ak sa sago nga dellu gannaaw ci li nga xam man loolu laa lay ñaan Ramatulaay suñu jarbaat la séqula njaay lu mu koy violé tey violé wu ko suba dama lay rassuré parce que am naa lu ma ci xam lu baree bare waaye man te gis nga Aïda li muy wax dëgg wér péng la parce que Aïda moom ak Ramatulaay tëdd moo leen tàqale moo tax su ma sañoon nga rafet ci parce que Binta nga nangu mariage bi dana am nga ñàkk nangu mariage bi day am moo tax bon <coughs> nga rafet ci Binta. man ngaa xam naan tegu leen ma fen ku ne na téye ci kaawam déggoo li ma wax de ku nekk na téye ci la la ñor. waaye yow yaay kan ba nga nangu dina nga bañ baraas dina am yow nda yaay ndeyam wala yaay bàyyi góor wala loolu lan nga ci góor a. rek nga di doo yem ci place copain ba nga nangu nga nga bañ yow seytaane woo te fii parapaj mariage bu dee man ak man rek du am te nag xëy na yaay gone ga ñàkk fayda ñàkk fulla ba may leen te du gis benn waajuru góor a man demuma tey demuma ëllëg gis nga bii mariage duma ko valider tey duma ko valider ëllëg sama bos dama doy sëkk ak barke te bu ma nee nag problème bi nang ci dellu ginnaaw du ma dellu ginnaaw te avancé ba ca kanam. mais Bintu ma yuuxu yow di tege fii sama loxo nga naa ma dellu ginnaaw. ay eh, vatan mais jarul yuuxu. Eh, non suñu sœur moom day gën a màgg di gën a réew quoi amul problème.